asalaamaaleykum mbokk yi ñu baaxoo déglu maa ngi leen di nuyu siwaat ci seen jotaay maye njariñ fas yéen indi daatal leen njariñ lu ama am solo mbokk yi njariñ lu ñu indi tey njariñ la loo xam ne lu mat a def la ndax par jamono rek lay ñëw maanaam at mu nekk benn yoon la cay ñëw bu la baraw rek faaw nga xaaraat déwén incha allah ku mel ne Sëriñ Suhaybu Mbàkke radiyallahu anhu indi na ci téeréem wax ne guddik fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu muy guddik nisfu Shaaban boo ko doon xool ci weeru tubaab da nga naan le sept mars mars incha allah mardi le sept mars après timis ci nga war a def lii may bëgg a wax kon na ko ñëpp déglu te képp koo xam ne vidéo bi yegg si na ci yow nga partagé ko balaa booba ngir mu mën a yegg ci ñu bari ngir ñu man koo jëfandikoo ndax lu ama am solo la te jamono xat na jaam bi war di ñaan boroomam fu mu toll rawatina ñaan yu mel ni nga xam ne ci guddi promotion yi rek lay ñëw balay boobu yéen ñi ñu soxla numéro téléphone bi 77 la 335 85 85 ana looy def guddig ni su muy mardi bii di ñëw mardi la set mars après timis ci ngay def lii may wax da ngay jàng ñetti yaasin ñetti yaasin wal quraanil hakim bu njëkk bi danga koy jàng nga yéene ci sunu boroom defal la ci gudd fan bu ñaareel bi da koy jàng nga yéene ci sunu borom musal la ci balaa musal la ci musiba yeeg xeeti ndog yépp nga ñaan suñu borom musal la ci bu ñetteel bi nga jàng ko yéene ci sunu boroom may la lu doy sëkk ba doo soxlaal kenn dara ba doo soxlaal dara nit ñi nii rek lañu koy jànge incha allahu taala soo ko defee ba noppi nga jàng ñaan gi ci war a topp dafa xaw a gudd nag waaye ñaan gi mooy nga sant sa boroom ñaan ko mboolem li nga bëgg ci ay xéewal ñaan ko mu musal la ci lépp loo ragal ci ay lor ñaan ko it léppi lu aju ci gudd fa ak wér ak yëpp nga boole ko ci ñaan gi gannaaw boo ko sante bàkk ko ci ay meloom jërë ngeen jëf yàlla na sunu borom àggale ci vidéo bi ñëpp képp ko ci jot na ko partagé moroomam te it ngeen di abonné ci page bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.